lii Lirou Diane waaw laay waxal moom gars yi dañ ne mooy monument Guédiawaye nit bu ne bu dee monument nga yow dafa am noo xam ne grand frère nga noonu nga war a doxe mais ni muy doxee du du dee fi nit samay booy génn mu naan booy Mbàkke yaa ngi ni koc leen sànni leen ay xer loolu dafa ñaaw teew nga ne monument moom booy miy wax noonu noon ku ma ci dajal doo ŋaang hmm. barke alxuraanu karim ku ma ci dajal doo ŋaang billaahi ku ma ci newul xëy doo mën a xëy waaye ñun ñëpp xamante ñu suñu biir mais am na yoo xam ne boo dee mag nga mag nga bu dee yow mag nga ñu naan Lirou Diane yow mag nga am na yoo xam ne da ngay doxi doxi ñu mag di waxe waxe ñu mag li ngay def ñaaw na trop kenn nawloowu la hmm? kenn nawloowu ko parce que li muy def dafa ñaaw di influence ay booy pour ñu gaañ samay booy ba ñu gaañ sama yenn booy pour lan loolu am na loolu yoon de waaye Papa Boy Djiné moo fa nekkoon di arrangé hmm. barke alxuraanu karim mais Lirou Diane kenn nawloowu ko ndax du magu dara hmm. kooku du tus dañuy eh, attaqué ku bëri crédit de. waaw yow kooku man dama ko faale. Hmm. dama yëg ni sax mi ngi dund. kooku faale wu ma ko. Hmm. du yëgu ma ni sax mi ngi dund. te wax booy bi mu jël la sax. loolu am na yoo xam ne man waxuma ay affaire rek cadre booy jël ma mu gars yi bu ñu ma jëloo bu ñu ma jëlu lépp hmm. man na ma mais am na ma metti affaire violence quoi affaire violence yi ji ngi ñu ngi bëgg violence bi yow nga yokk violence di woo booy naa la ay ngi ne koc leen sànni ay xeer am na yoo ne dafa ñaaw yow ñu ne nga ne monument parcelle nga monument yow monument géejawaay nga yow monument géejawaay dina def loolu gars yi bu ñuy fal monument dañ koy fal ko ànd ak ay xelam ku mat mais ku matul noo koy falee ay monument koo xam ne xel mi kenn xamul lu ci nekk waay billaahi am na xam dafa ñaaw waay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa parcelle gi yëpp nag gis naa seen taxawaay maa leen sant bu baax su ma grand altaban maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax gis naa taxawaay gis naa ñëpp daal ah waaye combat Vieux Top le 18 mars samedi waaw samedi bii di ñëw incha allah nag mooy woo waa parcelle ñëpp waaw ñu génn dem jàppale ko suñu borom defal ko ndam wasalaam incha allah